am na nañu mbégte bu yaatu li gërëm nag euh, bu baax ñi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi euh, Abdou Silla ñu naan ko Abdou Mbodj depuis ñàgg taw feex sama soppe boobu di ko ñaanal ak euh, yaayam Awa Diop depuis Cité ñàgg Cité feex moom Abdou Silla ma koy nuyu bu baax di ko ñaanal tamit yàlla defal ko jàmm eh, mais mbokk yi président Macky Sall génn démb nee na nañu wàññi rassemblement yi loolu de nañ ko wàññi ah. waaw maanaam dajaloo yi <laughs> nañ ko wàññi <laughs> comme que moo doon dajale léegi dañ ko wàññi moom ci boppam dañoo fa la ko teg Macky Sall nee nañu wàññi rassemblement yi moo yoxoon <laughs> nañu rassemblé léegi nañ ko wàññi lu tax mu ne nañ ko wàññi ñu seeti président Macky Sall fan la ko teg ak lu tax mu ne nañu wàññi rassemblement yi Macky Sall la ñu seeti kenn ku nekk sa tur ak sa sant vraiment dem naa ba xam ne ne léegi dëkk bi troisième vague bi di xeeñ ni muy ñëwee ak ni nga déggee ma ko déggee muy di ñëw ak ni ma ko déggee muy dox di ñëw dama ragal ne bu excès bi part duñ ko mën a téye te loolu am na leneen loo xam ne moom la ñu war a doxalee d'accord dañuy doon génn di def ay tourne économie waaye man foo ma fekk sama gémmin ma nga takk masque bi te comme que nañu xër moo tax buñ ma gisee ñu mën a téye seen bopp xam nga koo xam ne laa gis sopp la boo wootee na yaa ngi dem ci benn dëkk ñëpp génn doo leen wax ne dugg leen bu leen ma teeru waaye léegi dañ koy organiser d'une façon boo xam ne tempo tempo lay doon woote wax lu tuuti jëf lu bari jëf ji mooy maanaam ci ay inauguration ay projet la ñuy dox mais dootul nekkati ci ay taxawalu wara a di jéem a jaar ci ay koñ war a di dajale ay mbooloo taxaw di wax ñu la déglu amatuma jot boobu ni ma ko bañalee sama bopp nag du ma ko nangul keneen képp koo xam ne yaa ngi taxawati ne yaa ngi woote rassemblement boo xam ne dafay dépasser dix personnes pour ay woote nan da ngay jéem a ñaxtu war a leneen dootuñu ko nanguti parce que tamit le problème qui se pose mooy troisième vague baa ngi ci buntu Sénégal te buñ ko bàyyee Oh. waxtaan na nag tubaab yi ñu ne ma il faut que ñu arrêté parce que tamit ñoom bu ñu buggee ñoo investir Sénégal ñu ne leen feebar baa ngi dugal Sénégal ñoom dañuy delluwaat arrière te boobaa ñun duñu avancé maytuma kenn nag ñii di wax ay topp tànk ak tibb tànk ak taqandeer rek dootuñu ma bàyyi kenn kuy génn naan da ngay topp tànk wala taqandeer wara leneen comme que maa war a toog danaa toog tuuti ñoom ñu tëju parce que man rek maa war a génn dañ maa fal pour ma doxal gun ci campagne présidentielle ba suma ma génn ñu naan dañuy topp tànk war a tibb tànk quand même un peu de respect maa ngi dégg barke démb diwtiir naan ay xoma lam di jéem a nappe ma bëgg ko xamal na ko incha allah bu troisième vague bi semaine bii damay dem Ziguinchor mais bugguma coow te bugguma ñu naan moom moo fi indi lii war a lale léegi nag dana ñu def ay ay situation yu gàtt bu ñu demee ci benn bërëb dañuy inauguré def réunion jàll dem. képp koo xam ne fan sa makki nga te may bëggee. Ah. te wax dëgg yàlla wax na ko gars yi xam nga nekk président ba pare nekk star moo jafe. vraiment nekk président nekk sar foo romb Sénégal makki yi dañuy jooy. Ah. dañuy jooy. vraiment ngeen bal ma wax en français pour tubaab yi xam ne. vraiment li may wax nii ma jël naa sama devant pour affaire manifestation yooyu mun kii le Sénégal est un pays où quand je sors les gens sont là pour me dire Macky autographe tu nous plais <laughs> des fois je me dis est-ce que je suis pas Youssou Ndour ou Wally Seck parce que à chaque instant les jeunes me disent autographe on veut photographier avec vous en tout cas vous les Français et les autres pays il faut savoir que je suis non seulement président, mais président star. <laughs> non, non. Donc la France, je vous dis que même quand je pars à la boutique pour acheter sondel, Le boutiquier est là, il me dit vraiment, président, on est content de ton travail. Partout dans le Sénégal, je même pas peur, même pour sortir maintenant, ça c'est quelque chose, c'est comme ça. <laughs> Donc pour la France, je dis à Macron que rassurez-vous, Inch'Allah, on va arrêter les sorties pour que les Français qui vivent ici ne sont pas jamais contaminés. Ils n'en peuvent pas contaminer. Et vous savez, da ngeen di tàcc pour ñu xam ne yéen moom la voilà tu vois le peuple sénégalais m'ont toujours accordé l'amour vraiment et je demande aux Français de ne pas s'inquiéter parce que je vais faire tout pour maintenant faire le poudre <laughs> pour que les gens ne vont plus me reconnaître parce que quand je sors comme ça rek tout le monde les mendiants les vieux les xale <laughs> tout le monde sort pour dire que Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall. oui ñoom dégguñu wolof dégguñu wolof wax ko ci français. voilà Macron tout tout. c'est pas de ma faute. yaa ngi dégg Macron.